salaamaaleykum mbokk yi nga xamante ni yéen saxoo di ñu topp ci seen émission sunu yaakaar amaat nañu mbégte teewaat fii ci seen kanam ngir wéyale jukki yi nga xam ne tàmbale woon nañ ko boobu ba léegi di nuyu kenn ku nekk ci turam ak ci santam di ñaanal yàlla moom mi borom jàmm mu jàmmal kenn ku nekk ñu tawat ñu ngi ñaan suñu borom mu yëkkati leen bu ñu mën a dellu ci seen ay yëngu-yëngu waaw di leen gërëmaat di leen sant ci seen takkute ci seen émission sunu yaakaar. comme niñ koy faral di waxee rek mën ngeen ñoo bind mën ngeen jokkoo ngeen ci numéro yooyu ngeen di gis ci whatsapp wala ngeen bind ay laaj bu ngeen ko amee ci suufu njàngale yi nga xam te ni moom ngeen doon déglu wala moom ngeen doon euh, seetaan su ko defee dinañ mën a tontu seen laaj wala ñu xóotal njàng bi nga xam te ngeen bëgg ñu xóotal ko tey dinañu wéyale sunu cukki ci Matthieu Sarr ñaar fukk ak juróom ah gis nañu laata ñu koy kii rek ñu def ab pàttali tuuti ci li ñu jotoon a gis gisoon nañu ni Yeesu doon artoo taalibeem ci mujjug jamono ci firnde yi nga xam tamit ñoom ñooy wane ni mujjug jamono bi jege si na waaw joxoon na yenn fi ay firnde yi yoo xam ne bu ñu xoolee jamono yi léegi dinañ ko gis réew yi jóg di dal ci kaw ay réew xeet yi jóg di dal ci kaw ay xeet dem nañu ba léegi lu bon moom moo jël place lu baax waaw gis nañ ko ñu ngi koy dund ci jamono ji moom it artu nañu borom bi ni na ku nekk xoolaat. doxalinam tooginam ak jëfam ak mi jëflanteek ay moroomam ndaxte doomu nit kat dina dellu ci ci waxtu ak bés boo xamante ni kenn séentuwu ko waaw jërë ngeen jëf ci ci loolu ñu wéy léegi ci Macë saar ñaar fukk ak juróom léebu fukki jànq ya booba nguuru yàlla aji kawe ji dina mel ni fukki jànq ñu fab seeni làmp génn gàttandu ji boroom séet ba fekk juróom ci jànq ya di ñu am xel juróom ya ca des ñàkk xel ñu ñàkk xel nag fab nañu seeni làmp waaye fabaale wu diw waaye ñi am xel ñoom fab nañu seeni làmp fabaale diw ci njàq ni boroom seet bi yéexee ñëw nag ñépp gémmantu bay nelaw noonu ci xaaja guddi baat jib ne boroom seet biyaa ngi génn leen gàttandu ko bi ko janq ya déggee ñu jóg defar seeni làmp ñi ñàkk xel wax ñi am xel may leen ñu ci seen diw ndaxte suñu làmp yi ñu ngi bëgg a fay waaye ñu am xel ne leen li nu yor du doy ngir nun ak yéen tee ngeen a dem ca jaaykat ya jëndi bi nga xamee ne dem nañu jëndi borom seet ba agsi ñi amoon diw ci seeni làmp ànd ak borom seet ga ba ca reer ya noonu bunt ba tëj gannaaw loolu jànq ya ca des agsi naan sang bi sang bi ubbil nu mu ne leen ci dëgg maa ngi leen koy wax xawma leen yeewu leen nag ndaxte xamuleen bés ba mbaa waxtu wa léebu surgaya njiit bi dénk xaalisam te it nguuru yàlla dafa mel ni nit kuy tukki bitim réew bi muy laata dem mu woo ay surgaam batal leen alalam ku nekk li mu àttan kenn ki mu dénk ko juróomi million keneen ka mu dénk mu dénk ko ñaar ka ca des benn daldi tukki bi mu demee nag ki jot juróomi million ya dem di ci jula ba amaat yeneen juróom noonu it ki jot ñaar amaat yeneen ñaar waaye ki jot benn million dem gas pax nëbbu fa xaalisam xaalisu njaatigeem gannaaw diir bu yàgg njaatigéeb surga ya dellu daldi leen laaj alalam noonu ki jot juróom million jegeñ si indi yeneen juróom naan kilifa gi dénk nga ma juróomi million seetal am naa ci yeneen juróom njaatige ne ko def nga lu baax surga bu baax nga te takku gannaaw takku nga ci lu tuuti dinaa la dénk lu bare kaay bokk ci sama mbég naka noonu ki jot ñaari million it jegeñ si ne ko kilifa gi dénk nga ma ñaari million seetal am naa ci yeneen ñaar njaatigeem ne ko def nga lu baax surga bu baax nga te takku gannaaw takku nga ci lu tuuti dinaa la dénk lu bare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 gannaaw xamoon nga ne damay dajale fu ma jiwul tey góob fu ma faruwul kon waroon ngaa yóbbu sama xaalis ca denckati xaalis ya bés bu ma ñëwee nag ma mën a jot li ma moom ak li mu jur noonu njaatige bi ni nangu leen xaalis bi ci moom jox ko boroom fukki millions yi ndaxte ku am dinañu la dolli ba nga barele waaye ku amul li nga am as néew sax dinañu ko nangu te sànni leen surga bu amul njariñ bii ci biti ci lëndëm gi foofa dees na fa jooy te yeyu àtteb xeet yi boo xamee ne doomu nit ki mu ngi ñëw ci àll ci ndamam ànd ak malaake yépp booba dina falu ni buur toog ci jalam bu soloo ndam bu booba dees na ko dees na dajale xeeti àddina yépp ci kanamam te dina leen xaajale ni sàmm di xaajale xar yi ak bëy mu teg xar ci ndeyjooram bëy yi ci càmmooñam noonu buur bi dina wax ñi féete ndeyjoor agsi leen yéen ñi sama baay barkeel jël leen nguur gi ñu leen waajal li dale ci njëlbeenug àddina ndaxte xiifoon naa ngeen jox ma ma lekk te mar ngeen jox ma ma naan nekkoon naa ab doxandéem ngeen fat ma te rafle ngeen wodd ma woppoon naa ngeen seetsi ma te ñu tëj ma ngeen ñëw fi man ci kaw loolu ñu jub dinañu ne borom bi kañ lañu la gisoon nga xiif ñu jox la nga lekk mbaa nga mar ñu jox la nga naan kañ lañu la gisoon nga nekk ab doxandeem ñu fat la mbaa nga rafle nu wodd la kañ lañu la gisoon nga wopp mbaa ñu tëj la ñu ñëw ci yow noonu buur bi dina leen ne ci dëgg maa ngi leen koy wax saa su saa su ngeen defalee loolu kenn ki gën a ndaw sama bokk yi man ngeen ko defal gannaaw loolu dina wax ñi féete ñi ci càmmooñam soraleen ma yéen ñi alku te dem ci sawara sudul fay suñu sàkkal seytaane ak i malaakam ndaxte xiifoon naa waaye joxu leen ma ma lekk te mar waaye joxu leen ma ma naan nekkoon naa ab doxandem waaye fàttewul fàttule fàttu leen ma te dafle waaye woddu leen ma woppoon na te ñu tëj ma waaye seetsiwu leen ma ci kaw loolu dina ñu ne borom bi kañ lañu la gisoon nga xiif mbaa nga mar nga nekk ab doxandeem mbaa nga rafle nga wopp mbaa ñu tëj la te teew te toppatoow ñu la kon dina dina leen ne ci dëgg maa ngi leen koy wax saa su ngeen ko defalul kenn ci ñi gën a ndaw man ngeen ko defalul noonu ñi noonu ñii dinañu soobu ci mbugal gudul jeex waaye ñi jub dinañu tàbbi ci dund gudul gudul jeex kon léebu eh, yeesu jëlaat na ay misaal lépp ngir misaalaat ngir findelaat naka la nguur yàlla di mel naka la it taalibe yeesu yi di jëflante comme ni nga ko gisee rek ni leen yeesu waxoon ci jamono jamonoy àtte bu ñuy àtte xeet dina am lim goo xam ne ci ndeyjooram lañu nekk ak lim goo xam ne ci càmmoñ la mu yesu yeesu len leen na naa ngeen jox ma lekk maroon naa ngeen jox ma naan rafle woon naa ngeen jox ma koddaay lu ne mu wax leen ko ñu ne ka kañ nga xiifoon ñu joxoon la nga lekk kañ nga maron ñu joxoon la nga naan kañ nga rafle woon ñu wodd la mun len ci dëgg ma ngi leen ko saa bu ngeen ko defalee kenn ci ñi gën ndaw ci ma gëm man ngeen ko defal kon taalibe yeesu lépp lu mu defal moroomu taalibeem borom bi la ko defal lépp lu mu defal doomu aadama bi yàlla sàkkit yàlla la ko defal mu ne ñi féete ci càmmooñam xiifoon naa joxu leen ma ma lekk maroon naa joxu leen ma ma naan rafle woon naa joxu leen ma koddaay sore leen ma yéen ñi sànku ñu ne ah borom bi kañ lañ la gisoon nga xiif joxu ñu la nga lekk nga mar joxu ñu la nga naan nga rafle joxu ñu la koddaay wala ñu tëj la te nga opp te seet si ñu la mu ne saa bu amee kenn ci ñi gën a ndaw ci ñi ma gëm bu nekkoon ci jafe-jafe yooyu te taxawuwu leen ko wàlluwu leen ko man ngeen ko defalul kon lépp loo xamante ni ñu ngi koy defal doomu aadama yi yàlla lañ koy defal lépp loo xamante ni ñun taalibe yeesu yi ñu ngi koy defalante suñu biir suñu borom lañ koy defal comme ni ko jàngee léegi ci ci kàddu yi yeesu joxoon na tamit léebu kilifa googu doon tukki te dénkoon alalam ay surgaam ngir ñu mën ko ko jëfandikool gis nañ bi muy dellu see ku nekk ni nga amee ngërëm ñii gërëm na leen ñii tamit xarab na leen kon ñaan yàlla mu dimbali ñu ba li ñuy jàng ñu mën koy jëfe ñu mën a bokk tamit ci surga yi nga xam ne bu borom bi dellu see dinañu mën a gërëm naw li nga xam ne moom lañ ko defal di leen waxaat jërëjëf ci seen teewlu di ñaan yàlla mi borom jàmm mu jàmmal ñëpp di ñaan yàlla mu barkeel ñëpp di leen wax mën ngeen ñoo bind mën ngeen ñun woo ci numéro yi nga xam moom ngeen di gis ci seen émission sunu sunu yaakaar mën ngeen bind it ci suufu njàng li nga xam ne moom ngeen di seetaan wala di ko déglu ngir ñu mën a xóotal wala ñu mën a tontu seeni laaj jërë ngeen jëf ne leen yàlla barkeel ñu leen di jox dox daje ci yeneen i bés ci yeneen i jukki tamit jërëjëf